mbokk yi ñoo ko déggandoo sëñ Xaadim Gueye mooy invité bi yàgg nañu nag dañuy laaj toujours ñu dalal la si plateau bi ndaxte nit ñi en général dañuy bëgg xam kan mooy sëñ Xaadim jëmm ji fu mu fekk baax fa la jàngee fa la nga tàggate tey boo si bëggoon dellu si. Ah, loolu moom wax naa ko ay yooni yooni yooni yoon man euh, suma cosaan baabu la muy dëkk bi nga xam ni fa la Cheikh Adama Gueye bàyyi ko ak Cheikh Mabaabu Gueye ci famille boobu lañ bokk. Euh, man nag maa ngi juddoo ndax sama waajur ay jamono nekkoon na fi Dakar féete woon fa yàlla dogal na foofu laa juddoo Pikine ginnaaw bi la sama bàyyi ñibbisi Touba euh, balaa muy ñibbisi ci la ñuy yóbbu njaariñ ci kër sëñ Mor Mbay Siise sama waajur wu ñox sëñ Moustapha Guèye moo ñu jàngal alxuraan man ak samay mag ak samay rakk Eh, fa la ñu nekk ñun ñëpp ba jàngi fa alxuraan ginnaaw bi laa ñibbisi fi Touba yeggale sama njàng fii ci kër Baye Sahid Fall ci ay jamono demoon naa ba yor daara ji daan ko ja daan fa jàngale ndax yàgguma yàggoon ci daara ji ginaaw bi itam ñëw naa fii ci jumaa ji muy fi ñuy wax majalis bi jàng fi aslaf ci xam-xam dooga nag mm, nekk ci xaside yi xasida yi moom yàggee naa ko sax ndax njaareem laa ko tàmbaloon ca daara ja fa ma doon jàngee euh, nga xam ne dañ fa amoon ay kuréeli mawlut yu bari yoo xam ni daara ju nekk am na kuréel man nag daara si Moustapha bokkoon naa ci gone yi nga xam ne ñoo jiite woon kuréel bi daan yëkkati ñu di leen aw ci laa ko tàmmee woon bu ni ma ñëwee Touba continuer liggéey boobu continuer ko ba ni ma ko ni ma sooboo dëgg-dëgg ci liggéey bi waaye dëgg dëgg liggéey bi moom ci daara jal la tàmbalee. Mm-hmm. est-ce que mën nañu xam ne sëñ Xaadim euh, jàng bi da ko dab wala dafa def euh, maanaam mission da jóg rek pour nekk jàngkat. waaw mën naa wax ni damaa jóg rek pour nekk jàngkat parce que euh, dabuma ndax ci loo xam ne bi ngay dal alxuraan ba fer ji daanaka ci nga ko tàmbali loolu dabu la kon lu ma teel a tàmbali la waaye xam nga nit lu muy def lu nekk rek ak bëggam daf koy daf koy dimbali. sama bëgg ci loolu doon na ma dimbali torop saa su nekkee rek may gën a am courage ngir nekk ci liggéey bi ba ni ma ñëwee Touba di yeggale sama njàng ci loolu en 1984 laa commencé roy jàngkat bu ñuy wax sëñ Ndongo am dëkk Kaolack euh, mu daan jàng njàngum rajas ma di ko roy di ko roy ba en 87 88 ma tàmbali roy ba laay Niang di ko roy di ko roy ba quatre-vingt-dix foog naa quatre diggante quatre-vingt-neuf quatre ma commencé di jàng jàngu ni sëñ Ablaye Seck nga xam ni ñett jàngkat yooyu ci laa def sama sama jaarukaay muy sëñ Ndongo Thiam di sëñ Ablaye Niang di sëñ Ablaye Seck sëñ Ablaye Seck 1989 la njëkk a ñëw fii Daaru Xuloos ci mbaarum Daaru Xuloos mi boobu mbaarum seng la mu jàngal ñu fi 24 décembre euh, jàngo yu mag daanaka nag booba ci laa ko commencé nag di woroy ba tey ji euh, mënoon jàpp ni en fait euh, sëriñ Khadim Gueye les années quatre vingt la révélé wu si public bi ak Mame Diarra bi sëñ Fallou bi boobu ba léegi ak gisoon yaa ngi jël sa chemin sa yoonu bopp est-ce que kon sëñ Khadim Gueye jamono jii mu fële rek dafa bàyyi ñi mu doon àndal parce que wax nga fi Ablaye Seck da nga mës ànd ak moom wala. sëñ Ablaye waaw daan ànd wante ànd bi comme moom euh, dëkkul woon Touba ay jamono dakaar la féete woon man ma féete tuubaa ànd bi saxul woon nekkul woon ànd boo xam ne toujours maa ngi ànd ak moom maanaam du woon aw katam d'origine boo xam ne bu jógee dañuy ànd euh, des fois buy jàng si Touba damay ànd ak ñi may sama groupe dem awu ji ko fu mu mën a nekk yenn saay bu jàngee lu jege Touba ma dem ànd ak moom. waaye nekkul woon ni sax saa bu jógee rek ma ànd ak moom parce que euh, bokkuñu woon fu ñu dëkk waaye Ablaye ñag moom xam nga bokkuñu woon ay classe duñu woon ay maas bay ànd ànduma woon ak moom dama ko daan roy rek sëñ Ndongo am aussi noonu moom jàngu rajas rek lay jàng-jàng kenn nit euh, sëñ Ablaye Seck rek laa ci jot àndal ci jàngkat moo xam ni jàng na ma di ko aw bu jegee tuubaa ma dem yenn saa it ma jóge fii dem Dakar fekk ji ko dem bokk ci jàng yi fekk boobu du ma jàng. jamonoy kaset moo xewoon jamono jooju est que mën nañu jàpp ni am nay kaset yoo xamante ni moom sëñ Ablaye Seck génne na ko yow nga bokk ci. déedéet déedéet amul kaset yu mu parce que sëñ yaakaar naa kaset yi mu jot a def ci ay préenregistré foog naa li ci ëpp ay kasetu rajas la bariwul ay kasetu aw yu mu def euh, yi mu def yëpp ay yaakaar naa ay rajas la su ma mm-hmm. te kaset yi xam nga mi ngi commencé à partir de quatre-vingt-quinze ci lañ tàmbali def kasetu studio yi euh, man sama première casette maa ngi ko def en quatre-vingt-quatorze maa ngi ko def ci euh, daara Sëñ bu Lahad ji ji ji wu woon tudd daara Sëñ Abdou Lahad ma jàng ci Adja Banera bu sama mooy sama premier album boo xam ni def naa ko ci ci bu ànd ak mi daal di roy ci jàngkat bu ñuy wax ba Aliou Fall. Hmm. Hmm. est-ce que est-ce que archive yooyu ñu ngi koy am ba léegi yaa ngi moom ba léegi wala. archive waaw yu ci bari mi ngi fi ñu garder ko ndax. Euh, am na spécial koo xam ni loolu rek la féetewoo di toppatoo archive yi di ko garder même vidéo yi yu baree bari ñu continuer di ko garder bu ko defee yooyu yëpp ngir mën a sàmm liggéey bi ak mën koo téye comme archive mm-hmm. lañ ci jublu ba duñ bàyyi dara mu jàll. mais mais kañ nga gis ni yow nag war nga def organisation euh, taxawal sa kuréel ngir nag jël jàng mi nag. Euh, yóbbu ko fu sori euh, ban ak dëgg-dëgg nga jàpp ni jël nga nag say matukaay pour dem sa jël sa yoon bopp. man lu ma teelee la loolu en 87 laa njëkk am kuréel 87 laa njëkk am kuréel boobu euh, taxuloon sax mu sori trop ndax maa ngi doon jàngal daayira yi nekk fii Touba surtout waa wilaya nga xam ni ci laa bokkoon nga xam ni sëñ Mbàkke soxna loo radiallahu anhu moo ko taxawal mu bokkoon ci xale yi nga xam ni ci mbooloo mi lañ bokk en même temps di def lii maanaa di def wàllu jàng di animé daayira yeeg yu mel noonu bu ñu amee daayira ma dem fa jàng bu xew-xew yu mag amee aussi ma jàng nga xam ni ci wilaya bi daanaka ci laa gën a fëse gën cee dooree liggéey bi ba nga xam ni ci laa njëkkee amee daal group 87 88 ba 89 bi suñu Blaye Seck di ñëw fii Touba fekk na maa ngi am sama groupe bu may àndal di jàng ba en quatre-vingt-dix bi sëñ Mbàkke Soxna loolu di dem wilaya dakaar bi muy dem stade dakaar te mu jëloon terrain bi bi ñu fi eggee keroog programme bi man maa fa jàng ak sëñ Ablaye Seck foog naa ak sëñ Dongo Caam ah. année boobu la Baye Ablaye Niang demoon France sëñ bi yóbbu ko France pour ñu faj ko. Hmm. mais mais am na moment boo xamante ni ci la Sénégalais yi diaspora bi partout le monde ñu xam nag gën a xam Khadim Gueye muy maam Diarra beeg Serigne Fallou bi c'était en quelle année. maam Diarra bi 97 la ci laa jàng euh, sëñ Fallou bi 98 maam Diarra bi laa boole woon ak xasida gi wax Assirou Mahal Abrar ñoom ñaar ñoo génnandoo ñaari album yu teg loola ca déwén sa 98 ci laa génne sëñ fàll bi. nangu nga ni foofu foofu foofu nag gën amee tur foofu la Sénégalais yi gën a ràññee nag sëñ Xadim Gueye wala. waaw waaw bu baax a baax xam nga ay jamono sax xëy na léegi la waaye bu njëkk xaadim ngay maam jaara sax lañ doon wax ndax maam jaara bi ràññeeku bi mu ràññeeku maam jaara bi moom fi mu yóbbu tur wi ak fi mu yóbbu liggéey bi dara yóbbuwoo ko fa dara dara ginnaaw bi xam nga ci la nit ñi tàmbalee suivre liggéey bi nag tàmbali nag senegal daanaka koy jàngulu bëgg laa jot pour nga jàngal ko at yooyu at mu nekk danañ def kaset def kaset ci lañ def kaset sëñ Fallou bi 98 99 ba ay 2000 ak 2000 nangam ci laa def kasetu euh, barsan bi muy Seydina Mohamed bi euh, yooyu yëpp ci lañ topp kaset daa ba enfin quatre 2000 2000 2007 2008 ci la daanaka ci lañ tàmbali wàññi nag kaseetu yi kaseet yi enregistrement bi ndax booba daanaka amatul amatul benn njariñ bi mu waroon am waaw surtout ndax piraat bi ak technologie bi ni mu yokkoo nga xam ne daanaka bu kenn amee kaseet bi ñu bari man ko am mm-hmm. loolu wàññi liggéey bi wàññi doole ji aussi itam wàññi doole liggéey bi euh, ñu ñu nemeeku ni après nag jàng bi dafa commencé nekk li naan industrie commencé am kuréel organiser ko commencé di si am as tuut nag pour jëf ci sa communauté ak sa bopp euh, loolu yow Xaadim nga yaa ngi sëñ Xaadim nga yaa ngi ban année bi nga dafay kasetu maam jaara bi nga commencé nag organiser wu taxawal groupe bi commencé nag di laaj dara nag parce que wala bu njëkk bi lañ ko doon maye noonu rek. en 92 man laa njëkk a organiser taxawal kuréel boo xam ne buy jàngeeti day organiser wu ci ay ay ay ay textes yu leer ndax. bi 92 man laa njëkk ànd ak sëñ Mbàkke Soxna loo dem France jàngi fa le 2 juillet 92 bi ma demee ba ñëw euh, ci la ñu daje waxtaan dajale groupe bi nag jaadu na léegi ñu ñu structuré groupe bi def ko mu nekk groupe professionnel boo xam ni li muy def daf koy teg ci yoon ndax bu fekkee ni bëgg nañ lii mu jëm kanam foog ñu organiser ko. lañu waxtaan organiser ko euh, teg ko ci yoon ba tax képp koo xam ni soxlaati nga ñu jàngal la ki yore loolu nga xam ni moo yore wàllu liggéey bi mu waxanteeg yow nangam mooy transport bi nangam lañ koy jox nangam ak nangam nangam mooy doon sonorisation bi xam ni bu ñuy dem du bàyyi dara maanaam wàllu transport bi wàllu sonorisation bi wàllu jàngkat bi yooyu yëpp ki yore wàllu googu daf koy discuter ba ñu d'accord ñu doog rek. et pourtant yéen da ngeen liggéeyal Serigne Touba que mën leen ko maye pourquoi ngeen laaj. déedéet buñ ko maye woon du nekk sax Serigne Touba. Hmm. ndax nit moom lu mu euh, bu fekkee ni bàyyi na liggéey walla man defatuma benn métier lu dul lii hmm. euh, su ma ko bàyyee ngir liggéey. di ko def ngir sëñ Touba man nga tey ji jël sa transport jël sa oto par exemple jël say rajo ànd ak ñi ngay àndal dem def ko mu pare tey ji li nga fere ci transport bi ak rajo yi ak mbooloo mi ngay àndal ñooña duñ la delloo lu toll noonu su boobaa yow yaay làmb ci sa poste di def te bu fi nekkul kon nooy def bu xësee ba tàmbalee metti ci yow rek ngay sentir ni metti na ci yow mën naa am dootoo ci am yàlla dootoo ci am sëñ bi te ñi ngi koy laaj mën naa am ñàkkuñu ko te jaral na leen ko te nit ku nekk nag la ko tee liggéey rek loola liggéey la ci moom su ko defee nag bu fekkee ni yoral nañu lépp la ca des lépp parce buñ ko doon réglementé kenn mënu koo fay nag buñ ko doon réglementé kenn amul njëgu mën koo fay parce que poids am ni mu toll ak diisaayam kenn am kenn mënu ko fay waaye nag dinañ ci was lu àq ba lu toll ni lañ cay def ci fere moom dana génn mbooloo mi nga xam ne ñoom tam liggéeyatuñ lii rek mooy seen liggéey ñoom it ñu mën caa am luñ yóbbu seen kër masalan tey jii mën ngaa toog ci saal bi woo tey daara ji sunu ginnaaw mu ñëw pour wàcce la ay kaamil alxuraan mën na ko ba muy ñëw mën na am ngir yàlla rek la koy def parce que alxuraan kenn mënu koo fay waaye bu jàngee ba noppi ah, sëñ bi kat lii maa ko barkeeloo ñu yóbbaale ko ci daara ji ñu tàngale ko café wala nangam. voilà euh, si cadre fay boobu laay wax da nga ni yow en fait da nga ko mujj def métier am na ay jàngkat yoo xamante ne dañuy séparer ñaari jàng bi pour ñoom en fait euh, bu ñu amee temps boo xamante ni dafa libre ñu koy dem def mais teewul ñoo ngi seen métier mais Khadim ce que am na métier si àddunaam ak lu waral mu privilégié jàng bi que métier bi. bu yàgg laa xalaatoon ne dina doon sama métier mosoon naa jël liggéey bi boole kook daan def peintre am daan def décoration comme andi wi nii liggéey mais sori woon naa ci sax ndax amoon naa ci xam-xam ba fi mu ne nii fàttewuma ko am naa ci xam-xam waaye booba fekk na sama njàng bariwul torop bariwaay bu ma yàqal liggéey boobu par exemple mënoon naa jàngi tey mercredi suba jeudi ma dem liggéeyi vendredi ma liggéeyi samedi ma dem jàngi bi ma demee ba njàng mi nangu liggéey bi nga xam ni chaque jour damay jàng chaque jour ma bàyyi liggéey bi parce que liggéey bi laa gën a préféré li tax ma gën ko préféré mooy moom laa gën a bëgg te lim boole ci man dafa bari mooy dina dundal sama xol dinaa ci servir ay nit yu bari yoo xam ne ñi ngi ci nàmp di ci dund euh, am na sëñ Touba dinaa ci wut ngërëmu sëñ Touba danaa ci am yàlla ak lépp lu baax lu nekk rek loolu dinaa ko ci mën a am loolu moo taxoon ma gën ko soxla gënoon a taamu tam liggéey boobu muy liggéey bu ma fonk nag boo xam ni yamalewu ma ko ak euh, groupe nga yor entreprise mu doon wax nii tey da ngay fay ay salaire mu doon jàpp ni ci prestation yi ngay def. organisation bi mooy groupe la boo xam ne man mii maa ko jiite euh, am na keneen koo xam ne moom laa teg sama ginnaaw nga xam ne mbooloo mi moom moo leen diriger ci heure yi ñuy jóg heure yi ñuy départ heure yi ñaata fan la ñuy def fan ak fan la ñuy dem yooyu yëpp moom moo ko yore ñaari oto la ñuy doon benn bi maa ci nekk ak ñenn bi ci des mbooloo mi ñoo ci nekk ak sonorisation bi. loolu mooy moo gën a nekk suñu organisation. à peu à peu près euh, ñaata nombre moo nekk sa group sa staff ñëpp ñaata la. groupe bi mat na dix neuf personne sama oto ak trois yi sama yi may àndal oto bee quinze lay def. Euh, tey est ce que bu fekkente ni da ngeen amoon tournée à l' extérieur dix neuf yëpp dañuy am ay kay kayit pour dem. man mosuma génn sax ànd ak kenn far parce que loolu wax naa ko fu nekk ci rajo yeeg ci télévision yeeg fu nekk parce xam nga fii Sénégal moom génn fi yombul surtout affaire visa. Euh, organisé woon nañu nu nekk bind nañ lettre fu nekk ngir ñu jàppale ñu ngir ñu dimbali ñu bu ñuy génn mu yomb waaye ba tey duñu am benn ndimbal saa boo defoon tey ji groupe boo xam ne da nga ci ambassade yi ne da nga war a génn boo yeexee yow mi ñu xam rek lañuy may waaye ñu ci des moom duñ leen may et pourtant euh, damay gis groupe lëmb si wàllub euh, musiciens yi képp ku yor instrument da ngay dem ba si ñi nga xaman sax ay topp la rek yéen ñi nga xamante ne da ngeen liggéeyal islam euh, di ngi liggéeyal Serigne lu mel noonu ñu xañ leen ko si yéen wala si ñi koy joxe la wala si ñu nekk seen diggante ak ñoom mooy gouvernement bi ñan la si yéen am nga ngeen war taxawee ba am loolu. ni ñu war a taxawee ba am loolu yëpp taxawee nañ ko seulement musique du du lii ñuy def parce que musique lu universel la loo xam ni tey jii bu groupe musical taxawoon suñu groupe bi taxaw nga ni groupe bi groupe musical lañ la ñu gën a daal di gën a comprendre lan mooy affaire sans religieux loolu duñ ko gaaw a xam lu lu difficile la pour nga expliquer leen ko sax bañ ko xam ko loolu moom Sénégal gi sax am na xamul loolu ñu ko fi xamul ñoo xam ñu ngi dund ci Sénégal xamuñu suñu groupe yi na nan lay taxawee loolu nag defoon nañ ci ay lettre am nañ ay association yoo xam ne am nañ ay récépissé am nañ yëpp waaye daal ba léegi mënuma ma laa wax ni fii la tagi nii état nii fii nii ambassade yi nii fii en tout cas daal saa bu ñu dugalee suñu ay këyit pour ñu may ñu en groupe du du sotti. mais sëñ Khadim Gueye loolu bett da ciy am parce que boo demee si yeneen kuréel yi sax dana yor ay groupe moo bëgg suut seen tur. waaye da ngay gis ni bu ñu ñaanee da leen di may parce que li ngay def ni musique spirituelle la di dundal xol ak xel ba si nasaraan yi sax danañ am envie déglu la du ma la jiitu waaye xam naa ni bu ma joxee micro bi di nga wax ni was naa dem fenn tubaab dégg ma yéemewu loolu day am parce que musique dafa universel mais li ngay wax ni dafa universel parce que c'est une voix baat la waaye transformé muy bégal nit pour man yéen na xeex bi ngeen war a xeex dafa des wala ni ngeen war a expliquer autorité ñu comprendre seen mission dafa des est-ce que a ngi si parce que bu ngeen waaw waaye xam nga lépp loo gis lu nekk rek ci wàllu organisation dafa am surtout sunu yoon wi nga xam ni yoonu kilifteef la yoonu doo jiitu sa kilifa yu baree bari ñun am nañ ay association yoo xam ni euh, organisé wu nañ yëpp euh, taxaw ngir loolu seulement nag nit ku nekk lañ ko ca dénk ak lam ca war a dox ak fam ca war a yem foofu rek la cay yem mm. mais nag kanta bu fekkee ne ña yor wàll googu moom toujours bu ñu bu ñu boqee daje dañuy expliquer wu ni jaar nañ fi ñu war a jaar wante sottiwul kanta man sama groupe nga xam ni ci laa sañ wax man def naa ko ay yoon pour jéem a fexe bu may génn donte ñetti nit la sax ma essayé ànd ak ñoom bu ëllëgee ma yokkaat su ëllëgee ma yokkaat essayé naa ko nangam yoon jàllul kayit yi ma am yëpp ak yi garanti yëpp yu wane ni su ma demee maak sama mbooloo dinaa dellu siwaat présenté naa ko duñ la may seulement yow mi ñu gis sa passeport am ay visa yu yu bari parce que groupe bi comme kenn musu cee génn euh, seeni passeport amul ay visa boo ko boo ko boo ko présenté rek surtout nga présenté ñaar ba ñett du yomb ni mu war a yombee mais xëy na yow mi ñu gis say passeport am ay visa yu bëree bëri ak passeport yi jeex ak yooyu yëpp daañu am confiance may la soit buy buy buy buy génn rek yow rek la ñuy may waaye ñoom duñ la may buñ la waxee dañ lay wax ni amaguñ pareeguñ daal pour may leen wala amaguñ confiance pour may leen. Euh, bu dee si biir réew mi seen droit d'auteur yi est-ce que ñu ngi leen koy dajaleen parce que mosu ñu ngi toog benn jour euh, ay œuvre Sëñ Xaadim Gueye duñ koy utiliser partout nag. ba si Sonatel mi ngi utiliser seen ay œuvre partout partout partout ba si sonore téléphone yi mais ba si tamit rajo yeeg ñoom seen ak ñuy def ay message publicité yeeg yeneen ak yeneen yi est-ce que ñu ngi leen fay seen droit correctement. droit yu ci bari manqué na lool lool lool ku mel ni man bu yàggoon deux mille année deux mille la inscrire woon BSDA kaset yi yi jote génn après deux mille yu ci bari ci wàllu kër fay nañ ma ci fay bi. xëy na bariwul parce que ni waroon producteurs yi ni ñu waroon verser seen seen seen droit verser wuñ ko noonu euh, kantaan ak ay image ojo euh, rajo yi loolu moom fayuñu jigéen kenn loolu buñ doon fay heure bi weesu lañ fi Sonatel euh, am na diggante deux mille sept deux mille dix sept ak léegi am naa dalal ton yoo xam ni signé woon nañ ko ak Sonatel yooyu rek mooy yi nga xam ni moo moo ciy dox loola itam euh, ñu ngi ko déposé déposement bi itam euh, mi ngi mi ngi dox seulement jëlaguñ ko ndax dañ ko fa doon bàyyi ngir ba mu ba mu am njariñ ñu mën ko dugal ci liggéey bi waaye moom ñu ngi koy suivre parce que BSDA euh, protéger na ko ak yooyu yëpp. YouTube kon mën nañu jàpp ni ko fa dugal sa œuvre jamono ji mën nañ ko sanctionner parce que dañ ko protéger parce que bari na ñuy jël sa ay œuvre di koy utiliser si YouTube bi surtout waa YouTube moom déjà commencé nañ ci liggéey ba ñi ngi am yaakaar ni du yàgg itam loolu yëpp dana protéger wu ndax liggéey la boo xam ne itam bu mat a sàmm la bu mat a teg ci yoon la ba ragal naa ni daal weer wii ñu nekk muy weeru koor gi balaa jeex loolu yëpp dina protéger wu bu njëkk nag dañ ko bàyyi woon rek euh, comme neex nga utiliser ko ak nag loo gën a dem ci kanam di gën a xam di gën a ubbeeku di gën a xam liggéey bi Euh, ba loolu tax na ñu ngi ci liggéey daal. Euh, bu bu ñu ñëwee si sa carrière xam nga euh, kuy tukki day gis day daj lu nekk rawatina milieu bi nga nekk di milieu jàng si la daanukat yi nekk si la maanaam monde bi yëpp di tase ku nekk ngay gis loolu mën a expliquer si loo dund lu la yéem loolu si jàng bi wala lu reelu loolu wala lu metti loolu wala lu neex loolu si biir jàng bi ay histoire yu ndaw yooyu. yu bare bari man yi ma ci gën a marqué nga xam ne du dañ ci man mooy jàng naa ba tàyyi nit dugg ci lislaam doonoon du woon ab jullit dugg ci lislaam man tuubal naa fukki nit ak ñett ci loolu rek doy sëkk ab liggéey dugal kenn ci lislaam rek doy na liggéey dugal naa ci fukki nit ak ñett ñaari ñi ay tubaab lañ ñu ci des ay africain lañ am na ci ñoo xam ne Gambie am na ci ñoo xam ne Côte d'Ivoire la ñi ci des Sénégal am na ci ñoo xam ne maa leen tuubalal sama bopp ñi ci di jigéen soxna jaare laa leen tudde ñi ci di góor sëñ Touba. ba hmm. daaw rek ci weeru safar wi hmm. ci Petersen rek tuubal naa fa nit tuddee ko sëñ Touba ci man mii la jébbalu hmm. kon loolu rek doy na sëkk boo booy xalaat lu la lu la lu la ci marqué loolu doy na sëkk kanta lu lu reelu sax du ci bari ndax liggéey bi moom barab biñ koy defee ay caaxaan du fa am wante itam di nga dox ba dajeeg loo xam ne aussi daf lay yéem man euh, boo xoolee tey jii dafay mel ni euh, murid yi euh, façon bi ñu bi ñu jàppee liggéey bi ak biñ ma jàppee mun mu ko expliquer tey jii dem naa ba li ma am ci ay turandoo mun mu ko wàññi romb na juróom fukk te ñaar rek la ñoo ci sama mbokk ñaar sama mbokk deret ñi ci des ñëpp sëñ Tuubaa laa bokk ak ñoom xam dañ lay sopp tuddee la doom ba bërki dem am na ku ma tuddee doom ci boori xombal bis bi biñ ko ngéntee ba bis bi dellu si xale bi faatu ñu door ma woo fii yëgal ma ko toog naa lu mat ñaari weer déw ma fa ma fa jaaree di ko siyaare ak di ko masawu mu ne ma bu keneen ñëwaatoon bu doon góor yow laa koy tuddee te kooku mosuma ko gis keroog bi ma koy jaale ji xale boobu laa koy doog a gis xam nga loolu bu dee rek lu yu lay marqué yooyu rek chaque jour loo loo lu sa yaram sonn sonn chaque jour rek boo xalaatee yooyu da ngay da ngay amaat courage. Ah, sëñ Khadim Gueye masul am bés ak euh, daanukat yi parfois ñu xaw a dérapé tuuti ñëw si jàngkat yi bañ a leen parfois mu xaw a daal yéeme mosul am bés yooyu. <laughs> loolu moom ci lañ dëkk bisu seen nga gis ko daanu. jëm si ci yow benn ñu téye ko wala ñu bàyyi ko mu egsi wala mu bette sax nga xam ne kenn du xam fu mu jaar ñoo waaw mais yooyu yëpp yitam awkat yi duñ la duñ la ci bàyyi noonu maanaam bu bu songoon tey bëri ci dugg ci biir itam awkat yi ñëpp ay jóg ku nekk xëy na def lim man ba du la gaañ waaye ci lañ dëkk moom. yàgg na mas naa ci am bis waaw mas naa ci am bis yàgg na fii ci Kazu Rajab benn waay boo xam ne dafa daanu. fukki micro bi ma yoroon bi mu waxee ba pare bi mu ko sànnee fii la ma dal mu toj waaw loolu lu siiwoon la sax waaye yooyu yëpp da nga koy jànkonteeg moom da gis nit koo xam ne da ngay jàng ba génn mu mu song la maanaam laxasu am na bis ma jàng ba génn ndeysaan nit song ma téye ma téye boo xam ne pour nit ñi dindi ni ma téye rek jafe na mu laxasuma rek ni du bàyyi yuuxu ba fu baatam yem. góor la góor la. waaw ndax nekk ci jël rek toujours dama koy wax. waaw am na am fekke na fekke na fekke naa man jàng yoo def ndar mooy kañu kaso bi prison bi mooy lendemain su ma juumul mooy veyu veyu de raakaay kër Umu Mbay ah, yaa ngi koy foofu noonu yaa ngi koy rappelé wu jigéen jóg na may na la bopp <laughs> ni waaw léegi yow boobaa yow nooy def. <laughs> moom da koy tàmm ba du la def dara du la def dara bis bu set ñu joxe fi nit àddiya <laughs> Eh, benn soxna ànd naag doomam ba si fi joxe ko fi àddi sëñ Touba ba tey am na koo xam ni eh, joxe na fi doomam ma nga bari ñi joxe fi doomam àddi sëñ Touba ba léegi may wax ak yow ba bi mu fi daanoo feebar moom góor googu dafa wax ni mu dund mu dee kii àddi sëñ Touba la man la ko jox bis bu sat rek nga gis yu mel noonu. waaye yow nooy def su booba mosoo si am sax yan soxna. déedéet déedéet mosuma ci am soxna nag waaw waaye nag ñoom ñëpp dinaa leen téye ngir sëñ Touba. Mhm. naa leen taxaw dinaa leen jàppale. lu mat lu leen mat a defal danaa leen ko defal ngir sëñ Touba. Euh, ku daanu jël bijou or joxe ko jël ay takkaayam joxe ko yéen da ngeen def ak moom da ngeen di gis tayu ko wala da ngeen di jël yéen ko moom. Eh, man li ci ëpp dama koy delloo sax am naa habitude bi ba nga xam ni saa bu nit joxe ay takkaay wala dara dama wax nañ ko ko téyel saa bu ñu jàngee ba pare ba yaramam sedd ñu delloo ko ndax yooyu yëpp ay jël la yoo xam ni nit ki day joxe ba dootul am lu joxe mu tekki ay ay ay ay takkaayam di la ko jox yooyu nag ñun daanaka man man boog li ëpp ci li may li may kii dama koy delloo bu dee lu ma gis waaw parce que mën nañ ko joxe xëy na te du ma ko gis waaye bu dee lu ma gis dama koy joxe. voilà si sa répertoire tey boo si ñëwoon euh, tey ñaata kii nga yor œuvre maanaam yi nga xamante ni yow yaa moom yaa ko war na mat ay junne junne de xam naa su ma loolu bari na de loolu moom xaw ma nu mu toll wax dëgg xaw ma ko moom bari na ba xaw ma nu parce que ay ay ay son jàng nii rek da nga gis ko la wax ne am naa ci cinq cent et quelque ñii di la wax ni am naa ay six cent et quelque son te yooyu am na lu ko ëpp lu mu lu mu gisul te wóor na ma ni lu mu gisul moo ëpp li mu gis mm-hmm. loolu moom benn tournée année bi rek daanaka mën na dajale loolu. Euh, say création nu mu lay dikkale parce que wolofal yeeg yooyu am na yoo xam te ne yaa koy fent am na yoo xam te ne boo ko fentul yaay génne air beeg yooyu fexe ba nit ñi mën ko consommer xaadim suñ xaadim ngay nu muy créé day tëdd ba guddi day dem si boori géej comme ni ko yenn artistes di ba yeewu rek man daal dew ma fenn naanu ma dara nelaw ba yeewu rek jàngi dew ma géej dew ma fenn essayé wu ma du ma essayé sax sama baat damay nelaw buñ fëgg ma ma jàpp rek dem jàngi loolu moom du dara sëñ Tuubaa Euh, création bi nag moom explique ko xajul fii moom moom nii la may dikkee wala nii moom mënuma koo leeral toujours ma wax ko moom loolu yëfi sëñ bi la rek waaye du luñ mën a leeral euh, wolofal tam man duma koy bind mosuma ko bind sax wolofali mag ñi rek laay jàng sëñ Moussa Ka sëñ Bay Jaxate sëñ Mor Kayre sëñ Seex Sàmba Mbay yooyu rek laay laay laay barkeeloo daal seeni seeni way si wàllu création yi ngeen def si wàllu voix est du ngeen si am parfois duggante yéen ak jàngkat yi wala yéen sax pour que way yeneen waykat yi parce que ñoom ñu gis a sopp la ñëw jàng si yéen wala laaj la ay clé ak yooyu yooyu du faral di am bu njëkk sax am na yenn waykat yu la daan laaj ay ay ay air. pour génne ko euh, nga di leen ci jàppale soit ñu ñu def ay air bëgg nga nga orienté leen waaye xam nga nag dañoo bokkale dañoo bokkewul lu bari. waaw ku mel ni ki man moom euh, te ci man rek sama bopp rek laa mën a wax. man moom yàlla daf ma natoo sax far du ma déglu dara man du ma déglu du ma déglu dara laa du même sa mbokk yi sax sa mbokk yi nga bokkal di jàng xasida doo leen déglu bu waxee dëgg du ma déglu dara rajo sax duma ko déglu xëy na télé laay seetaan te information laay seetaan waaye du ma déglu dara loolu moom da yàlla daf ma ko daf ma ko bindee rek sama rajo sama oto fi ne amul amul amul amul clé amul amul carte mémoire amul dara amul CD bi sax du dox. maanaam loolu da lay perturbé déglu da nga bëgg di wéet quoi di am xam naa lu ma tàmm rek waaye yenn saa sax ma yam ci nit kuy jàng ma déglu ko waaw waaye bu dee man rek aw ma habitude di déglu dara. ma habitude bi maanaam dara dara dara dara soxlawuma déglu daal euh, son boo xam ni. waaw te loolu daf may daf may. xëy na sax waroon naa di ko def di déglu ñëpp mhm. di xam ak di kii mais lu ma tàmm la daal lu ma masa a tàmm la loo xam ni pour dé déglu dara tey yii rek loolu kiiwu ma daal sonalu ma daal. waaw mais bu dee si waykatu saayre yi ko si ma si collaborer ko si ma si maanaam liggéeyal si wàllu woowu wala mu ñëw di la laaj nga la kat lii laa bëggoon nga jàppale ma sax yooyu. loolu moom naa naa leen ci suturaal rek waaye moom euh, bari na daal ñu ci jaxasoo man. xëy na. Euh, de Youssou Ndour sax jaxasoo wuñu jaxasoo déedéet ñoo ñëpp jaxasoo wuñu <laughs> jaxasoo ma ak ñoo ñëpp waaw moom daal euh, ñu ci bari daal xam nañ ma ma xam leen dinañ ñëw ci man am na ñoo xam màggal sax fii lañ daan dal yooyu yëpp maa ngi leen koy nangul ngir cofeel gi ñu am ni gi murit yëpp am moom lañ am jaxano jaxasoo naa ci ñu bari nekkul nii itam damay liggéeyandoo ak ñoom déedéet. man liggéey parce que li may def bokk ak ñoom ne li ñuy def euh, lu dul xame bi rek laa leen garde li ñu garde ma xame bi ak cofeel gi waaye liggéey nu ma ñoom ci dara waaw sa am nañ droit nag buñ ma laajee lu ñu ma laaj lu ci tolloog sama xam-xam ma orienté leen wante defuma ko nag ngir dooleel leen wala déedéet mm-hmm. parce que am nañ yaakaar ci man rek loolu la waaye man moom amul dara lu may lu may liyeeleeg ñoom ci li ñuy def ak li may def nii bokkuñu. Euh, festival yi am da fay dem souvent mbooleem këru diine dafay tase. daanaa dem festival salaam mais léegi dematuma ci. Mmh. da ko boycotté. boycotté ma ko sax maa ko maa ko maa ci demul rek maa ci dematul rek. ñoom ñu ngi lay woo wala. ñu ngi ma doon woo waaw. Mmh. ba daaw rek woon nañ ma. xanaa cachet bi moo doonul wala. du affaire kese sax maa ca dematul rek. <laughs> voilà <laughs> sëñ Xaadim sa diggante ak ak ak jàngkat yi seen relation baaxi tax na amul concurrence seen biir de wala. déedéet man awma concurrence jàpp ma ni sax concurrence am na ci ci dara ndax man moom ba ma dalee di jàng ba tey mosuma def sama xel ci ci ci lu mel noonu ñëpp laa amal jàmm. Hmm. jàngkat yëpp samay xarit lañ seen xarit laa. li gën a jafe ci jànkat yi moom laa am mooy jànkat bu ne sa moroom yaa may jàngal man jànkat yi ñi ci ëpp maa leen di jàngal seeni jàng maa leen koy jàngal maa leen di jàppal sax bis dem jàngal leen bu ma leen jàppalul bis duñ ko def loolu jafe la hmm. euh, toujours dama koy wax damay wax ni bariwaana jànkat boo booleeg moroomam bu tëddee du nelaw man nag bu la neexee mën nañuy jàngee ci saal bii ma tëdd ci néeg bii duma duma yàqal ay nelaw loolu lu yàgg la ci man ba may gone ba tey man dara musuma déranger ci li ma nekk bu ngeen tasee si bâche nii kii war a jël première partie ak deuxième partie yow su boobaa nooy def parce que foofu tamit vraiment concurrence dafay dugg am ñoo xam ne nangoo joué mukk deuxième partie. loolu daluma man ku mu neex na jàng ku mu neex rek na jàng première deuxième ba troisième man nañ ma mujjee sax man loolu dérangé wu waaw def ko pour concurrence dama wax rek ni man jàngaluma ma loolu daal jàngaluma comme public bu yëngoo bu dal yooyu yëpp déedéet man moom saa bu ma jubloo jàng bu fa ñetti nit nekkoon xay na ñoom suñ xaadim ñii di filmer dinañ xam loolu jàng naa foo xam ne mbooloo ma mën nga leen wàññi nii comme ñi ci saal bi waaye du yàq ci bu ma doon jàng ci public boo xam ne tey jii mille personnes ñoo fa nekk du yàqal loolu. ñoo ngi naan folklore bi dafa bari si jàng bi parce que nee nañu léegi dafa bari ku jóg rek jàngkat nga parce que dañuy bëgg maanaam seexoog yooyu lu yomb euh, maanaam yéen anciens ñi nga xamante ni yéen moom yéen a jiitu wala bëgg yéen a ràññee tey est-ce que def ngeen constat boobu gis ngeen ni am na dugg aussi pour fooy ko. moo gis rek am na ñoo xam ni euh, ku nekk ak la ko ci dugal métier moo gis rek ku nekk ak la ko ci dugal. fii statut bii ma toog nag mënuma sikk kenn man loolu bàyyi ku nekk la ko ci dugal mu dugal ko ci mm. man l'essentiel rek man duma ci fo duma folo mm. ñi ànd ak man duñ fo te fas yéene may ñu fo waaye yow def nga constat boobu gis nga loolu dinaa ci gis lu a naqari mm. ba tàyyi dinaa koy wax sax ñaari ci baas yi ngir delloo si leen ñu xam lañ nekk waaye nag nekkul ni damay jàpp ni ko ci dugg rek xëy na ña cay dugg doomu aadamay juum jombul ñi ciy dugg foo dugalu leen ci wante nag métier moo gis daal ak ku nekk ak la ko ci dugal waaye man daal loolu dugaluma ci. Mm-hmm. maa ngi ñaan nag képp koo xam ne euh, yaa ngi ci rek nga fonk ko bu baax ndax gàkk gàkk bi nga ciy wax ñépp la naqari mm-hmm. ñi ci bokk ak ñi ci bokk ak bu fekkee ñi dem ba jànguñu sax ñooy seetlu ni am na folklore mbaa am na fo mbaa am na nàngam rek. ñun ñi nga xam ne ñun la suñu métti ñun la gën a naqare kon maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi ci rek ngay bàyyi xel loolu bu baax parce que gàkk-gàkk la boo xam ne buñ sañoon kenn dootul waxati lu ni mel. Eh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay ndax sopp la fu ñu dem di utiliser sa voix pour dund mais également pour pour bégal nit ñi ñooñu ñooñu tey am ngeen ay relation ñooñu est-ce xam nga leen te ñooñ loo leen di yëkkati comme message loo leen jox. xam naa ci ñu bari ñi ciy ñëw ci man xam naa leen ñi ciy jokkoog man xam naa leen ñoom ñëpp. te jàppal naa leen lool parce que cofeel dafa rëy nit ki la sopp ba di la roy moom fi la cofeel yem ñoo ñëpp nag jàppal naa leen loolu téyel leen ko li ma leen di digal rek mooy li muy li nga xam ne bu doonoon man loolu lay digal sama bopp mooy fonk xaside yi te jox ko gëdd jox ko worma jox ko cër ndax waxi sëñ Tuubaa la waxi sëñ Tuubaa nag bu ko gonee dee nettali war na koo fonk bu baax a baax mm-hmm. te ku ci nekk li nga am nettali mbindum sëñ Tuubaa rek moo la ko may Euh, sëñ Khadim Gueye si Sénégal ban dëkk la ëpp lu muy produire. yi man kay daanaka partout Sénégal yëpp. seulement daal yenn dëkk yu xaw a sori ay Kolda ay Kédougou ay. ay Casamance wet yooyu wet yooyu daal laa bariwul ay tànk. mais mais parfois nga dem fa wala. waaw yenn saa yi ma dem ma dem Casamance. Hmm. fu mel ni ay Ziguinchor ay yooyu daal ay Tamba wet yooyu ba ci ba ba Wuro Sogi. ay dem foofu. ñun ñoo lay woo waa dëkk ba wala communauté. ba fa nekk Sëñ Tuubaa ba fa nekk rek. Hmm. daayira murid ya fa nekk rek ñoom ñoom ay woo ma dem fa seeti leen. est-ce que du dikkal parfois nga bokk nga jàngal koo xamante ni bokk leen yoonu murid bi. jàngal naa ay tijaan ba tey ba barki démb rek am na ñoo xam ne ñaan gi ñu doon seen bàyyi lañ ko doon defal ay tijaan lañ maa ko doon jàng ci Dakar waaw. voilà euh, sëñ Khadim ngay euh, jamono jële weesu suñu loolu dégg si wàllu politique sa image gis nañ ko muy circulé euh, ñu ne jàppale da nga soobu wala loolu dañ maa tooñ rek damaa xëy rek gis ko ci ci ci Facebook dañ def montage bi rek ma gis ko ni ko ñëpp gisee laa gisee defoon naa ci déclaration it wanee ni man ànduma kenn man lii ma am nii kenn defaluma ko sëñ Tuubaa rek ma ko defal. Hmm. citoyen laa nag ci réew mi dëkk buñ doon voté dinaa voté ji waaye kenn du xam ku ma woteel waaye nag bu dee def def rek man kenn jiituwul sëñ Tuubaa ci man moo ma defal lépp. Xaadim kay war na may bien instant si jàng bi de jàng bi nga si bien ah. am lépp bu sa xel daj rek am naa ko. sëñ Tuubaa defal na ma lépp. léegi est-ce que noonu noonu mu baaxe sa ko noonu la baaxee si mbooloo mi ànd yow. bu baax a baax. waaw li may yëg rek la ñuy yëg. damay dégg faral naan awkat yi ñoom daal toujours duñ si gis seen bopp. daal laaj leen ko ñoom saa bu may dem duma leen fi bàyyi. te ku ma fi bàyyi di ma dab. ñu nekkoon si yow génn tey jii am na ñuy concurrence yow parce que fi nga doon jàngi foofu la ñuy tey loolu loolu lu mu la def. sant rek nit daal bu nekkee ci mbir ren ba déwén te kenn fekk ko ci war naa xool lam nekk te baax gi mu baax a tax ñëpp fekk ma ci jàpp ni am na njariñ moo tax ku nekk bëgg a def ni may def mhm. lu baax dañ koy joŋante daal. Mhm. mais mais jàngkat yi benn boobu ñuy wax est-ce que am na seen biir dëgg dëgg dëgg dëgg réellement parce que am nag ay mbir si biir ah. man am na ci man man ku ma gis rek yéene naa la jàmm ku ma gis def naa la ne sama bopp loo am yéene naa ko bu ni ñëpp defee rek mu baax. Mm-hmm. Euh, sëñ Khadim programme am bañ jour lay am noppalu jour noppalukaay nga xamante ne jour bii moom dina noppalu. man awma jour fu ma tëdd bis bu ma tëdd jàngiwu rek dañ maa jàngloowul mm-hmm. waaye saa bu jàng ñëwee rek ma dem. mais pratiquement mën nañu wax ni toute la semaine da ngay jàng wala chaque mois wala c'est pas. biir koor gi sax bis yi ma ciy jàngul yu néew la koor gi sax dama koy jàng ginnaaw suba rek dinaa jàng ginnaawaat suba. Hmm. incha allah. te foo jàngi lu mu guddi guddi tubaab tubaa ngay fanaan si. déedéet bu jàngee de fanaan damay fanaan foofu ba suba. am jeex. bu may jàngi feneen ma continuer feneen fi may jàngi. mais sëñ Xaadim jàng dafa métti nag si ñi ñi woolu de parce que ñoom nee na nañu dépense yi bari na yéen da ngeen di teg ay charges yu métti ay xarak ay. ko yéen daal noble ngeen léegi. <laughs> bañ nekkee noble yàgg na bañ nekkee ci xasida yi lañ nekk noble. <laughs> waaw charge yi métti yooyu amul moom. Ah. ay laaj xarak hmm. yooyu moom du suñu mbir. ay ginaar sax duñ ko laaj wax malaaki xar. Ah. waaye yooyu moom weesu weesu nañ lool daal. Hmm. mais mais fayeeku bi fayeeku bi est-ce que mën leen ko wàññi aussi également bu dee da ngeen liggéeyal sëñ Tuubaa dëgg la jar na ko mais en fait bëggeel tamit dina am côté public bi ba doon am moyen est-ce que yéen boobaa da ngeen def social. baatu sax neexuma. Hmm. baatu même du wecceeku waaye tu fayee ko wecceeku yooyu doo doonu ci dara <laughs> waaw nañuy joxe liñ am rek waaw. Hmm. waaw ah. yëfi yàlla la daal yëfi sëñ Tuubaa la waaye mën na ko def rek. voilà am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi jël ay million ay millions millions di ko def ci ay caaxaan nga ci teg sa bët li ma la wax yaa gën a xam te loola jaral na leen ko. Hmm. te ay taalib mën naa am sax ay taalibe la ñuy doon te jaral na leen ko publiquement nga xam ne ñëpp leen di gis hmm. duñ duñ nëbbut ci li nekk muy ci làmb di ci musique di ci lu mu mën a doon kon bu dee ci sëñ Tuubaa war naa mën a nekk. Ah. Euh, enfin dañuy question bi grand théâtre bokkagul say projet damay gis ku jóg rek Sénégal foo nga natt suba foo nga damay dem grand théâtre feesal ko euh, wala yow duggoo si yooyu moom. ah bokkagu ci de hmm. xam naa ci kanam rek na. Euh, bëggoo dem ay grand théâtre ak yooyu. bañu ma ko sax waaye jubloogu ma ci rek. c'est-à-dire sëñ Xaadim mën na ko feesal loolu moom kenn waxu ko. loolu àgguma ci daal waaye jublooguma ci rek. Mhm. jublooguma ci grand théâtre. voilà euh, sëñ Khadim émission bi mi ngi si cëppaa ndaw li bu fekkee am nga looy dolli ñu bàyyi la nga tàggoo bokk auditeurs yi internet yu xibaar 24 point com. sant bu baax a baax di ñaanal ñëpp weeru jàmm weeru jéggal weeru euh, barke weeru xéewal ci barke Cheikhul Khadim.